aéroport international Félix Houphouët-Boigny foofu la la Côte d'Ivoire di tàmbalee la dalal jàmm. ci lu soxal ñeent édition Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire dafa bugg a jël raw gàddu gi ci wàllu organisation ci juróomi dëkk yi dalal yile compétition muy Abidjan Yamoussoukro San Pedro Korogo ak Boaké. mbedd yi ñu ngi tàmbali di soppi seen xar kanam fan zone yi lépp yemb na foofa le public bi war a suivre lu toll ci juróom fukk ak ñaari joŋante yi war a tàmbali fukki fan ak ñett ci weeru janvier jëm fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu dëgmal joŋante bu njëkk bi war a dox diggante Côte d'Ivoire ak Guinée Bissau ñoom Côte d'Ivoire ñu yemoon ci quart de finale CAN bi ñu génn. coéquipier Serge Aurier yi faaw ñu def seen kéemtalaay kattan ngir am ndam balaa ñuy dugg seen ñaareeli jongante war dox seen diggante ak nigeria fële ci ab stade bu ñu dippee Félix Houphouët-Boigny ñu defaraat ko gonek Jean-Louis Cassé faw ñu dalal xel yi ci kanamu ay likawon yoo xamante ne danañu def seen kéemtalaay kattan ngir déjouer Côte d'Ivoire ci top départ bi de compétition muy dalal.